Mm-hmm. et et puis dama damay considérer toujours rek su ma toogoo fii rek mbiru yàlla la ak mbiru son excellence le président Macky Sall du ma ko considérer affaire compétence. mais aussi nga dénk dara ku ko xam mu ëpp solo que nga jox ko koo xamante ni novice la ci affaire bi. waaw mais xam di nga xam mais da ngay jàng toujours. Mm-hmm. Euh, man dama am posture quelqu'un de très très euh, humilité lu lay demee ci lu ma nekk ça veut que du ma xalaat ne xam naa rek ba defee ne ak yegg naa yeggaguma. Mm-hmm. ça veut dire ah jot naa ci am yu ma faraatu. jot naa cee vivre loo xam ne mun na ma peut-être nekk ay ay ay ay ay ay jéego la. yoo xam ne dina ma dina ma yombalal yoon bi ma fi fi ma teg ak ak responsabilité yi ma jox. expérience expérience bi. Mhm. donc je pense que ne euh, incha allah fii ma jox nii nekkul lu ma lu ma xamul. Mhm. mais nag comme lu ñu wax rek euh, dañ koy aborder avec beaucoup d'humilité. Mhm. Euh, kon ne di jàng travail en équipe ak ñoo fekk. fexe tamit am vision son excellence de président Macky Sall euh, ma mun ko exécuter à travers programme yi fi teg mooy de modernisation des euh, de la pêche artisanale euh, fexe tamit Dakarnave bi ñu dënk te concession bi incha allah dafay jeex en deux mille vingt quatre ñu xool ban taxawaay la ci nguur bi di am pour que population bi ak état du Sénégal gën cee mun mun cee gën a gis boppam mm-hmm. donc c'est important et puis ak le euh, le port de Ndayane bi nga xam ne c'est le port du futur mm-hmm. bi nga xam ne c'est c'est ça fait l'un des investissements les plus gros investissements boo xam ne état du Sénégal def na ko et ce que ça va générer en en en emploi ça veut dire en euh, création que ça va créer en en richesse et en ressources euh, la Sirna aussi dafa am benn taxawaay bu ñu ci war a am mooy euh, Euh, avec avec le l'exploitation pétrolière bi nar am Sénégal. il mhm. y aura des bateaux de dernière génération qui vont venir au Sénégal. il y aura des bateaux de de plus de deux cent deux cent trente cinq mètres. des bateaux de de quatre cent mètres. des des cargos des supertankers euh, qui vont venir ici au Sénégal donc la sirne bi nga xam ne moom la ñu dënk lu ñu naan réparation navale ak construction navale. dafa am beneen taxawaay boo xam ne war nañ ko moo def foofu beneen doc flottant boo xam ne ki va nous permettre de de placer encore le Sénégal euh, comme le le centre même en Afrique euh, de la réparation navale donc loolu lépp dafa nekk ay ay enjeux yoo xam ne euh, dañ ko war a dañ ko ay war a teg fii ba fii ak deux mille vingt trois te mu nekk nag loolu yëpp nekk nag lu ñu naan gis-gisu njiitu réew mi ñun dañoo nekk fii rek nga xam ne lu mu xalaat rek ñun ñu def ko muy nekk réalité. Mhm. te tànk yooyu nag lañ nekk temps yëpp di di defar ay usines ñu ngi defar usine actuellement il y aura cinq usines qui vont être d'ici février incha allah bëgg nañ cinq usines yëpp commencer fonctionnel il y euh, deux usines de fabrique de bateaux pas seulement de pirogues hein. de bateaux au Sénégal on va construire des bateaux au Sénégal je vais je peux m'avancer parce que. est-ce que est-ce que aussi l'expertise est là. mais l'expertise est là parce que en collaboration avec euh, des, des sociétés étrangères. Mm -hmm. euh, on a mixé des sociétés étrangères ñu ànd ak ay sénégalais ànd ak Sirna ñu def transfert de technologie au lieu ñu dem di jënd bateau yi di andi Sénégal dañoo wax ne son excellence président Macky dafa bëgg ñu def bateau yi ñu koy fabriquer fii au Sénégal donc ñun loolu la ñuy matérialiser actuellement nii am di yora aura deux usines au Euh, usine boo usine yoo xam ne dañ ñoom ñooy fabriquer bateau yi des bateaux de pour la pêche bateau boo xam ne day def bateau de pêche euh, pour que pêcheurs artisanaux yooyu ñuy wax mun a ñëw di jël bateau yooyu di ko pêcher dem di ñëw nga xam ne le problème day le problème yu bëri euh, deuxième chose c'est ces usines là dañuy dañuy tamit fabriquer des bateaux yoo xam ne ñooy def bateau de liaison yi entre les plateformes pétrolières ak ak ak le port ak ak ak la terre les bateaux de transport bateaux de de marchandises ce qu'on appelle les crew-boats donc tam nañ dañ ko fiy def euh, usines yooyu dañoo nar a fabriquer des li ñu naan bateaux vedettes ay vedettes yoo xam ne pour la surveillance des côtes mm-hmm. bateaux yooyu dina am ay bateaux yoo xam ne bateau ambulance lay doon aussi tamit bëgg nañ xalaat te loolu lañ ciy dox. ak yeneen yeneen yeneen sociétés yi nga xam ne direction yi nga xam ne qui dépendent du ministère de la de la pêche yoo xam ne état bi tam ñu xool tam ñu ñu dënkale yeneen yeneen fànn dinañ xool en collaboration naka la leen sir na mën a jàppale ba ñu mën a def comme la lutte contre l'incendie en mer c'est important les plateformes pétrolières dafa war a am ay bateaux yoo xam ne des bateaux pompiers te loolu asnaar bi koy bi ko bi ko bi ko bi bi ko war a yore incha allah dinaa dem ak gisanteeg euh, directeur bi ñu xool tamit naka lañ ciy waxtaanee pour ñu euh, Sirna mu leen accompagner. ce qu'il faut comprendre. Mm-hmm. Sirna son excellence le président Macky Sall da ko jox benn mission bu claire et nette il veut que le Sénégal fabrique les bateaux qui vont servir au soutien logistique des plateformes pétrolières. Surtout l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, c'est ça. Ça veut dire que président, dans le contenu local, beaucoup de ñuy dem di importer ay bateaux. di ko boo xam ne la valeur ajoutée day toog ci yeneen réew yi ci li nga xam ne moom la ñu yàlla jox mooy suñu pétrole bi dafa bëgg que tous les xam la ñu naan lu ñu naan métier annexe yëpp autour du pétrole que les Sénégalais puissent bénéficier bénéficier de cela et ça commence par la fabrication de de bateaux la construction de bateaux en, fait, en, en, en fera partie. Et donc, c'est donc ça l'enjeu, ça veut dire, c'est ça le défi de la CIRM. CIRM, dafa war a yóbbu Sénégal beneen niveau dans la construction navale. mën a jàppale port Dakar ba nga xam ne le port de Dakar va être encore plus attractif parce que su nekkee bateau yu ngand yooyu di ñëw yàlla dafa def ñu mun ko ñu mun leen a defal seen lu ñu naan seen carénage fii seen nettoyage seen entretien fii si Sénégal mais du mot ñuy demati ba ay ay Malabo wala ñuy dem ay en Côte d'Ivoire di di di le faire. et ça va créer plus de deux mille à trois mille emplois seulement la réparation navale au, Sénégal donc loolu la loolu mooy vision wu son excellence le président Macky Sall créer des des petits des petits métiers autour euh, du port de Dakar autour euh, je veux dire l'exploitation pétrolière euh, autour de la construction navale parce que la construction navale tamit dafa amaale ay chaudronnerie am na soudeur yaa ngi fii métier yëpp ci am ba nga xam ne donc euh, même les les métier yi nga xam ne mooy ce qu'on appelle indirect yi ça va faire plus de cinq mille cinq mille personnes euh, donc loolu tax na tamit ñun dañoo xam nañ vision boobu ñun dañuy taxaw pour mun ko mun ko matérialiser